Carla la borom VIP bi boolu moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ku bëgg ay mbokkam yaa xam mbay mi nga xamantene mom ci boîte de nuit di for tiaga yi bés bu nekk matin midi soir Macky Sall ko yëpp ya xam bay matin midi soir mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci tiaga yi nekk sawet Macky Sall ko yëpp Macky Sall yow Yakham mbay mi génnee affaire bi ci kanamu Marème Faye Sall génnee bagaasam yi si kanamu Marème Faye Sall yow kooku traité woo ko de nee na Yakham Mbaye damay jaar te naka Cissé Lo waxee woon bi yeboon nee na Yakham Mbaye dafa génnee kanamu Marème Faye Sall et pourtant Macky l'a pas mis en prison ah yow yow Yakham Mbaye affaire am bi sa jabar gis na affaire u Yakham Mbaye yow loolu waxoo ko violation waxoo lenn amul benn mërs Macky Sall koo yab j'aimerais bien savoir kan la Macky Sall yaboo fet kan nga yab bu fekkee ne dëkk bi amul kenn ku lay wax dëgg ñun ñooy taxaw wax la dëgg Macky Sall Yakham Mbaye bi génnee kooyam bi sa kanamu jabar première daam Voici bah, c'est le de di ko Sénégal tu l'as pas traité de violeur tu l'as pas traité de violeur Les yow ñun ñun pas yab ñun nous traités de ñun Ils suñu ne ne pas traité de violeur xam war nañ Sénégal enquête yow ya xam bay nga xam tan day collé sa jabar diko ko collé di ko collé di collé yow koku traité woo ko de violeur lay yow suñu président Ousmane Sonko bi nga mëna traité de violeur yow Macky Sall ko yab j'aimerais bien savoir kan la Macky Sall yab ñun waxu ñuko dé bu la né mam mo len sosal dé si c'est Lo moo taxaw wax ko génné audio bi audio baangi fi gars sarax len ma audio bi nga xam tane siisaloo nee na de xam bay dafa génne fait, ci kanamu Marème Faye sarax len ma ngeen ma audio bi may ma rek journée rek ngeen ma audio ñu viol la wala du viol et jusqu'à présent on n'a pas eu d'explication légui yow nga mëna jël donc bu am 800 kg, bi pesé 800 grammes nga ne ko ràpp tëj ko ci kaso bi te yaa xam mbay bi di génnee kooyam sa kanamu jabar doo ko ci kaso bi Macky Sall koo arrivé à un moment il faut dire le gars ce qu'il y a arrivé à un moment nit ki bu lay ñëw di la humilier di la humilier di la humilier arrivé à un moment il faut aller au front Macky Sall dafa mën a toroxal gor Macky Sall dafa dudd rek bu toroxal ay gor votre votre vie malsaine vie malsaine Vous savez. ne Fille la Karima Tavares Il ay vidéo non vidéos moo des ci la fi photo zizi ou Aliou Sall internet bi vous vous n'êtes pas des violeurs hein alors que chaque bout de rang on voit vos sexes partout Vous vous Vous ko wasan ci

nan naankatu sangar bo bon bobu nonu birima nga xam tane moi wax ya xam bay ñoy and ci bistro yi ah mo fi daaka euh, nan vodka brima vodka yo brima ko mën a toog bay jox leçon de morale c'est que man dama mënta comprendre Sénégal des gens qui n'ont pas d'éthique qui n'ont pas de morale comment on peut confier notre avenir à à des gens aussi immoraux aussi malsains yo brima bu yo boo nekkoon fi kan mo lay fal birima loo tekki birima yow sa yaram bi oos na birima nga mel ni ku dul sangu maa xalaa ah, naankatu vodka nii sa yaram bi rek la mën a mel léegi yéen ngeen foog ne naankatu vodka kër yi tere na ci boîte de yi ah di wër ay caga dégg naa birima caga nu mu gën a foroxee ba a sangu ñooñu la ci taamu léegi yow yaa mën a toog ah ci télévision yi di dénigrer ko xamantene mo moo la ëpp diplôme mo la gëna a jàng moo la gën a civilisé moo la gëna a gentleman et que les gens sont là à partager ce genre de vidéos et à l'écouter amna yenn vidéo yo xamantene amna yenn nit yo xamantene ne war tok sa di len seetaan mais comme Sénégal la motax tax Birima am fonction nee naa pour faire ce que Macky Sall il fait pour gouverner des moutons on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 10 Macky Sall li muy def nii liggéey bi muy def nii ku am certificat fin d'études élémentaires ku amul certificat mun na def tellement que le gars il est nul il est nul comme son cul yow Sonko moo la mun a jàngal lépp yow Macky Son Sonko même ni ñuy même la façon de manger sax là la Son Sonko on na la ko jàngal dem laa fi toog sama benn xarit woo xaritam bi nek Italie ndaysan mosul gis Sonko xamul sax kuy Sonko. ñuy waxtaan ni mu ne ko yow xam nga ne yow euh, euh, diw Sonko dañ koy bëgg a def prison kan mooy Sonko mu won ko photo bi mu ne ko kii dafa war a nekk suñu président de la république damay voté mosuma woon voté damay dem voté Macky Sall le plaisir des yeux que Sonko nous fournit yow du du plaisir des yeux du plaisir du cœur yow physiquement man dama daan gis a nit ki bu ñaawee pata xol bi sax day xaw a rafet mais yow du nii l'un ni l'autre Sonko nañu rey Macky Sall Sonko nañu violé boog on s'en fout Sonko dina dem dina dugg ci pale bi. soppe Serigne Babacar la premier bi bi boolu moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ko bëgg ay mbokkam